Mar euh, naka nga dundee bi ñu la éliré tab la nga nekk maire Golf Sud. alors je l'ai vécu euh, avec euh, beaucoup d'humilité je l'ai vécu en fait en mesurant responsabilité bi nga xam ni moom la doon ñu jiital la. Mhm. mais je l'ai vécu aussi en me disant que sas la dama ko jàppee sas ndax dañu dénk. dénk loo xam ni nekkoo woon yow kese yaa ko doon uti li may wax toujours on était huit candidats donc il y avait sept hommes. man maa ci nekkoon jigéen donc yàlla dogal ci mbaaxam donc euh, ñu retenir ma comme maire de la commune de Golf Sud mais euh, succéder aussi à une autre dame donc kon Golf Sud nekk na commune boo xam ne jigéen a fa nekkoon te jigéen moo ko uutu kon jàpp naa ni loolu aussi euh, c'est quelque chose d'assez symbolique ma dund ko aussi ak vraiment fierté bi nga xam ne euh, moom moo ma habité woon en me disant que euh, c'est vraiment loo xam ne daf ma ko war a def pour jaamu ci yàlla ndax euh, buñ la dénkee lu day ni commune dénk la loo xam ne c'est cent vingt mille habitants li ñuy wax si jiite responsabilité la sas la te li ñuy wax xeer sax bu ko kenn faxastalee am naa ci responsabilité ma delluwaat aussi ci diine wax li nga xam ne moom lay sas moom mooy euh, euh, dénkaane mais moom mooy responsabilité kii njiite donc boobu aussi dama ko dund ak euh, vraiment yaakaar ni ah, am na lu ma yàlla dénk loo xam ni war naa ko ci mën a jaamu donc loolu yëpp dafay doon ay sentiments yu bari mm-hmm. yoo xam ne daf lay en même temps et au même moment nekk lu lu loo xam ne dafay dafay dafay diis si gis-gis mais ma oyofal ko trop ndax dama jàpp ni yàlla mi nga xam ne moo ñu ko dénk moo ñuy jox teeñ bi ma am aussi yaakaar ni lépp lu la yàlla dénk nga def ci fulla def ci fayda mm-hmm. xam ni xalaat ni am na loo ci mën a indi yàlla dana la ko yombalal kon loolu yëpp dafay doon ay sentiments yu bari yoo xam ne biñ ma falee neer moo ma habité woon moo may continuer di habité moo may continuer aussi di gunge ndax saa su nekk war nañ taxaw seetlu xal xam ni ñu ko doon ut bari na mm-hmm. yàlla yëkkati ñu ci jox ñu dénk ñu ci suñu ay nawle kon tamit loolu tamit dafa nekk loo xam ne dafay doon loo xam ne dañ ko war a def pour réussite ci li nga xam ne moom la ñu dénk